dal leen ak jàmm ci seen seen production Malick TV ñu ñëw ak yéen ci journal actualité yi nga xam ne ni moom la ñu gën a ràññeekoo tey jii Abdou Aziz Diop nekkoon conseiller ci président de la république 12 xam ngeen yëkkati woon na ay kàddu fan yi daal doon ñaawlu doxalinu Macky Sall ci xañ gi mu ko xañ mu bëgg a nekk candidat ni ki tey jii nag ñu ngi yéeg leen di daal Abdou Aziz Diop mais mais mujj naa génn ci alliance pour la république maanaam génn na APR ak Benno Bokk Yaakaar. xagn dal ngir bëgg dem ak boppam eh, ginnaaw loolu eh, ki nga xam ne moo di bërëm su lay jóg moom mi nga xam ne eh, moom moo nekk groupe président groupe parlementaire bu yeewu askan wi bokk pasteef fan yee xam ngeen ni ay njum da daloon na ko ci kàddu ñu doon ko toppee en vance au chef de l' état tey jii may nañu ko Eh, liberté manam bay nañu ko dal ginaaw bo xamé ni euh yobon nañu ko fele ci kasaba mom mi di birom sulay job ginaaw bu mu jume ci kaddu ba jéglu won sax dal ni kaddu yoyé dal da ci jum te it xam ni ëpp na way mi ci jéglu way téré wuti eh, nañ nañu ko ba mu ko bayyi na tangom bi di el malik ndjay nga xam ni mom mo yor kaddu passef eh, ci communication bi mom mi tamit dal ab audio bu gennon dal ñu don jorf ni mom la ba ñu mujjé xam sax di mom ci su bu bàyyi ko ci Pape Alé eh, ka ca wax daal feeñal ni moom moom mi moo wax waaye du El moom mii nag di El kon mujj nañ koo bàyyi tey waaye liberté provisoire lañ ko may eh, ca audio boobe taxoon ñu jàpp ko moom ki nga xam ne moo di El Malick Ndiaye eh, jërë ngeen jëf li moo fi gënoon a fës ci li fi ruuse ci ay xibaar.